arrabitatul xadimiyatu lil baaxi fiina wa daarisin ñu ñëwoon nag tey siyaare si cheikh Mouhamadunil Muntaqa xafisahullahu taala wa raa ànd ak sëriñ xaadim Diop mii di sëriñ xaadim Muntaqa doon ko jébbal si seen fukkeelu isdaar fukkeelu téere yoo xam ne ñi baaxoo di ko génne te lépp jëm ci ndonal sëriñ bi ci wàllu xam-xam mu doon nag saadatul muridin diwaanu saadatul muridin nga xam ne lu ëpp ñaar téeméeri xasiida ma ngi bokkoon ci sëñ Abdou Lahad Mbacke radiyallahu anhu dajale woon ñu mool ko mool bu ràññiku nag taban faaxira boole kook silkul jawahir bu mu itam beneen buñ mooloon ak diwaanu cheikh cheikh Ibrahima Diop almashari yi mu tagg sëriñ bi yooyu lañ andi woon doon ko jébbal sëriñ bi ba mu gis ko ba ñaan ci ñu door koo tasaare nag ba nga xam ne ku ko soxla ci taal yi mën cee am loolu moo ñu fi andi woon tey ànd ak sëriñ Abdou Khadir mi moom sëriñ Cheikh May ak sëriñ Mamor am Amdi ak sëriñ docteur sëriñ Cheikh Naam sëriñ Mourtada am sëriñ Fallou ñu teewal fi yeneen mbokk yi nga xam ne yëpp ñoo bokk ci rabita bi ñu ay ndaw waaye nag di liggéey liggéey boo xam ne am na solo lool sëriñ bi bég na ci lool xolam sedd na ci lool rëy na fi moom rëy goo xam ne it nag ñun mënuñoo melal lool. kon ñu ngi koy ñaanal suñu borom sàmm ko dëgëral ko di ñaan njaboot ndaw yi jóg am yitte jooju suñu borom sàmm leen gën leen a dëgëral. ba liñ bëgg ci tasaare liggéeyu sëriñ bi ñëpp jot ci ndax le si de waxoon rek xéwal la goo xam ne ñëpp ñëpp ko moom kon ñi koy xéwloo nag ñu am wartee fu tasaare xéwal gi bokk na ci tasaare xéwal gi nag mbindam yi nga xam ne lépp leer la lépp mbaax lépp njub la ñu fexe ba ñëpp mën jot ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm salaam.